wa rajawtu fi hafatan fi dunya wa ismatan fi laaxirati fa ama sababu zalika jamaa jamihi sahabati saatul yawmin fi salaati alxadaati suma nada bi bismillahi fi maqaal laay nettalee dénkub rasool bam tàggu toog maas bun jabeel bam koy yabal réewi yaman bi bismillahi fi maqaal laay nettalee dénkub rasool bam tàggu toog maas bun jabeel bam koy yebal réewi yaman dénkam baak faatug rasool diisam nga tey laa misaal yëg maas ga misaal te boo maasa nga yaman mahmoodu sow moom kànka ya dib ca bokki bayti ya mooy taarixal saa baya dénku maas moon yaman fas ci yéene am ngërëm te dolli goo ay gëm ca ci yërmandi ki gëm borom aras roy ma asma salaatu xudwati teew tànnee fi teew ni tëj gi ne teew mbër ma giiw naa soxla naa dem yaman yaa seral muhaajira wa ahlu lansaari tura jibril moon xaaru hira ne yàlla neen yebleel yaman moo tax ma xëy tey jii ne leen yaa ma muhaajiriin lan saari ci man di doon tey soxla naa dem yaman faaruuxa jëkk buur di wër te naa ko yaa xayrul basar am xaala yaa homar jekkil du yow di dem yaman mu toog mu baa woo keneen yaa ma muhaajiriin lan saari ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman usmaana jóg ibnu afaan mi dal ñu jot ci alquran faxaala ya ibnu afaan igli wala subil yaman mu toog mu baa mu woo keneen yaa ma sar muhaajiriin lan saarikum ki man di doon tey soxla naa ku dem yaman ababakar ma dib goroom moo jóg taxaw njool ma sa ngir ker sa gaag la muy goroom mbay xam na moom du dem yaman Ababakar moo jëkk a gëm jébbal ko doomam tey gërëm te jox ko mboolem xalalam topp ko di nga tu ko woon na mbay moo gën a woom pasak naga xara ki la boole ak i jaam gaali wurus la la boloon yaa tonu yaa bari nga ñaay yaa mate ñee maana la saay ma moodu sow def na la waay yaag ilimaani waaya man ababakar masul di tooñ way jur ya ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yàlla borom ba bindoon ababakar masul di tooñ way jur ya ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yàlla borom ba bindoon yónneen ba doonoon àndandoom am na juróom fukk ci maam yu la tooñ yàlla te ñoom duñ mooy boroom ba leen bi noon yéenay sibaat kay nekku far kem ba du hóotag na du far yaay bàyyi xiig ba yaa ko jar yaa dàq tey fi man mbay toog mu baa mu woo keneen yaa ma seral muhaajiriin lan saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman xalli yu buur ak si xafaar naa su barar doon dellu ñaar maay xus ca yay lare ñaar mu nay ne doo doon yaman yaa ibnu hami yaa rasuul man fu ma xaaj fi noon ñu tuul maay gaynde maay saw ba tool ndax man nga taamu ci yaman mu naa ko man yahri suni wa anisi wa jaarani أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن مناك من يرثني وأنسي وجارني أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يدعوك وكنين يا مصر المهاجرين lan saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman maa sa jóg mu jabal mu naa ko yaa ibnu jabal xamal na dem yow la ñeel yaa ilimaani waa yaman fanta lakke yaa maas jibiilu moo ma maas na dem yaman doon seen liwaas moo ilimaani waa yaman yonen ba woo foofa bilaal naa ko tàllal masaan meteel mu ñëw mu daldi koy meteel te naa ko waajal dem yaman maas daal di jàpp gëléem fab la teg mu di ko yéem ba naa ko kaaya doom maas tey ma dénk law yaman yonen ba jàpp ceeb loxoom naa tey ma dénk lalu woom dénkub xarit bu di jegeem ci sun borom waa yaman itaqillaaha e yaa maas wasul lisaanaka maas wallaahu rabbuka aas هنا وفي أرض يمن إذاك لا يا ماس وزن لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن maas naa ko dolli ma leneen tebul ma dencalit leneen loo xam ne danga ko wax keneen te fekk boo maa yaman mu maas yo man isaab ñey metti ay xaab te seen lam ya ñuy ko góob ñooy waxi neen wax ko yaman bul rek maas te mbokku xiif te bul desal ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif xaraam na wax ko waa yaman boo lekkatee maas ba bul denc bul wetti bu tuur gannaaw dangaa lekk ba wutal ku xiif fa waa yaman ku wóob julit di ko leen bur yàlla fab la di lexal ca ñami aljana xamal lii yóbbuloo ko fa yaman te boo jullit mu naan bur yàlla nandal la jinaan min maa i kawsara di naan yay teeru Mustafa yaman ku sangaab jullit malaan bur yàlla sang malaan hariiri jannati nga daan ca teeru de wa kow yaman ku suturaal awray jullit bur yàlla def laab xarit sa yawra ji ko wisiit yowmal xiyaab wa ko yaman boo wuññi jullit ayib bur yàlla wuññi say ayib jébbal la gaayu lay laab tey mbër ma wax ko waa yaman te boo xasee mbokkum jullit mbaate nga ngaññi ab jullit def na la jëng naari gaat te jéem la lii jaru ko woon te boo xasee mbokkum jullit mbaate nga ŋañ ab jullit dem na la jéng naarikat te ceen la lii jaru ko woon ni dégg neeg malaaka teew lu buur lépp di teew malaaka fab la ñépp giiw di sa jëf ya nga jëfoon yow bul nelaw ba naa xureet ngir ruugalee mu ne xoreet mboolem njaboot ga di la seet te duñ ca man la fa yaman xamoo maas naari nga jëm xamul aljana nga jëm bul reeba kekku yow jahim fee jàllagoo ko bul xaram bu lekk maas ñaw lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñaw lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla lam nuy jëkkalaaj bi ndag bi déef lay jëkkalaaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéy sa yàndandoo duñ mën a wéy keroo nga gis ku na wéy balab keroo nga ñam yawoon na nga yërëm lu sa boroom te deel yërëm kat say moroom mi réew mën a maas ak yaroom ak yërmandeem raw naw xamal maas yow mar xiyaam jaar dana jénni far ni baam suubaan la tudd wenn ngaam wa daj na duniyaa ak logon keroog nu buur bi ba tey jaan jaaga banku naari fay xiib na ba ñas ngir xaru way tooyayu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana for way tooña ak ña leen di far wey tabbi naari ci atte fa yaman maas na ngay laal te gadalaa bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon da raw fa waa yaman ndegam da ngay jëndey dinaar téeméeri junni ci dinaar ci ndox mu sell nib dinaar aljuma dellaa fa yaman ne man maas bul koy ragal ndem tooñuloo jarul ragal ngir dem na am caay nga muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom foo man di nekk moo la moom bul sàgganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman foo ne maas na ngay xalaat ne gat siraat bu mën a faat loote nang goy mën a waat demal jaat te fa yaman foo dëkk deel sa xoo kër muy xàll baat muy fa sa kër barab ya ñooy sa seere far yow mal xiyaab wax yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fab dëggit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fàtti fa waa yaman na ngay dëkkaale ki faqiir miskin ya maas bu leen di te soo defee nii fekki foo man di jëm foo waaye man xam nga maas kat alxuraan xamal ko képp kuy royaan faqir miskin ya andi leen bokki jataay foo waaye man bul sàgga nag maas bul topp neen ya kat maas képp ku dee réccu maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatul watul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topp tooy jarak yaman jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow mal xiyaab laatiw yaman jàppal ma dénk maas ngir man ragal naa maas ba nuy dajeeti yow maas yowmal xiyaam laatiw yaman maas ko yaa rasuulullah nëb naa sa dénk bi walla may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bi fa waa yaman maas ko yaa rasuulullah nëb naa sa dénk bi walla may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bi fa yaman yónneen ba jàpp loxoom ñaanal ko tawli loxoom am maas waaxule doom tey dénk naa la waaye man dénku maas ba fii la yem xatteem ba tey laay bëgg a jëm xaatuk rasuul gaa ku te boo maasa nga yaman keroog ba maas yeggee yaman yëggangu neem nga fa yaman ba yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yonen ba bu baax waar leen ba xol yene firaax yaman ñana jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman julli ci yonen ba bu baax waar leen ba xol yene firaax yaman ñana jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman dana la ngëb di la teral yaag sa di leen bégal mu jooy fa jooyu réy ba dal ñu di ko ñoo waa yaman ومن يبديك يا ماس خال لوم ليساس أمر سيدي ماس حبيبو عند اليمن ñulaaj ko lan la la digal mu tontu leen lam ko digal nemmi ku way ragg tebul saggane miskin fa yaman maa fa ñoom di leen digal amat mu lenn mankiwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxoon fa waa yaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaanu al tiim ko na yow yeewul maas dangay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonent baañ ci sukuraat yow ngay nelaw ba naa kuréet mboolem saa ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman dellu ko baa mu ne maas yonent ba faatu na maas yëgal na Madina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman dellu ko baa mooti fi naa ko yëgal ne sile saa suuf tiim na yonen yile saa mu tiid lox fa waa yaman keroog la maas génn yaman tabbi ca biir àllub yaman mboolem bi déew yom teen doon gis ñuy wëndeelu fa yaman keroog la maas génn yaman tàbbi ca biir àllum yaman mboolem bidiw yëm teen da doon gis ñuy wëndee fa yaman mboolem garab gen yënguwul mboolem ngelaw len nu jógul mboolem asamaan si niral ñu lag bu fa waa yaman mu naa ji la guddee nguróoj di jooy di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa lii ma gént fi yaman ndem luñ dëggal la delu am na del si guddi gi ma saytaane rajiim soppil ma mbir mi fi yaman yendoo keroog bëccëg bu tiis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram ba wépp diis ngir mbir mu ma mu gisoon yendoo keroog bëccëg bu tiis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram ba wépp diis ngir mbir mu tiis ma mujj son ca nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal Madina yàkku man ca nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal Madina yàkku man maas li te na keroog yonnen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog mu seefu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy jinde yaman ya ser di jooy malaakiir mara ya jooy ngir jooy maas moon yaman Mahmuudu Sow jooy la la aar yaa wayli wayli wayli aar fa a fa ayin wayli aar ma jooy la maas moon yaman جبير بنا يا سيدي يا مالكي فاستجي يا ويلي ويلي يا سجي في ليل آسف يمن مجاي فجاي يا قلال ناكو محمد رسول ما دون سانغب كدون رسول فاتنا تي مان في يمن مغي دي جولي جي دي جوي تغال دي جوي سجي دي جوي سجي دي جوي جكي دي جوي taaya ba sëlmal fa yaman fagaala yaa muhammada waabal qaasim sayida wa yaa himaaral masjida inna lillaahi la waxoon inna ilayhi raajiwoon dootum giseeti lam waxoon gannaaw keroog bam ne ma woon yowmal xiyaam yaa ku yaman jibriilu dootu naaw di ñëw déem ay waxyu ni taw di wax sangam luy nara xew tey dee gën dund fi man mu fa meteel gam ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko koy ñaan na woon di lox di jooy fa waaye man mu fa meteel gam ko joxoon delluy xalam lam ko waxoon tere ko koy ñaan na woon di lox di jooy fa waaye man naa maa ngi ñaan borom meteel gile a tiim te mooy rasuul bu dee na gi géwént daal lu am la naa génn haddun ba mu xëyee nga bëggaleem fabrax teg ca kaw sëngeem yësal ko war tàllal loxoom di tàggu toog bokki yaman naa soot di bàcc di doxal ñanantu fa noppuluwul bu noppuloo dafa yësal gëleem ga julli nii la woon bésab yonante lañ xibaar ne tase naa kuñ naa ximaar ma nuyoo keroogi maar mu di ko laaj yoonu yaman mas ko yow noo tudd naar mu ne ko man maa di ximaar te sama baayit kat yasaar moo diw turam ma jëm yaman ilaa maa sunnu jabal habiiboo xayru awal faraqa dunyaa te xamal maay ndaw li koy tàgg yaman maa sàcc foofara di jooy yaa wayli wayli wayli wooy malaaka yërmande ya jooy ngir jooy maas hoon yaman maas ne himaat ibnu yasaar madina nuñ def ba siyaar mu ne ko tiis ga doy na waar ak di tawat maas fa yaman mu naa ba tey ma di la laaj keroog ba yonnen ba di waaj ngeen di fa teew ba mën a sooj lu ngeen defoon maa ngi fa yaman kenn talatul kenn tëddatul kenn doxatul kenn defatul kenn waxatul lu dul ne xollu ñaadi miir am ñu defoon kenn tëddatul kenn talatul kenn doxatul kenn waxatul kenn defatul lu dul ne xollu ñaadi miir am ñu defoon gàtt sàmmam ba ne mes ba xam na ñoom dootuñu gis ku leen wàññeeti ñu ne tis di yooy borop la ñu meloon mu naa Useynu ki Asan laala di laaj mu ñu defoon lekk ki naan day lañ ba woon ngir ga di jooy seen maam ja woon ñu bokk wéy maas ak imaar ba ca kanam fekk ab muy sàmm ab gàtt di jiir maas jëm ca moon yaman ñu bokk wéy maas ak imaar ba ca kanam fekk ab jëbeer muy samaab jàtti di jéer maas jëm ca moon yaman fa xaala yaa amatulaa wa bil ilaa ilaa wa rasuulullah kay fa faatu axbaran mu naa ko faatimatu laa dégg muy jooy agasan agal Useynu ñanga naa yaa jadd naa te robon ate nga naa yaa ñoom ñaar ña ngay woote te naa yaa jaddanaa yaa jaddanaa kenn wuyuwul fa mu tëddoon maas wi ba yegg di nuyoo kanaa yi la nuyoo salaamu bayti nabiyoo ma di risaala la waxoon jabel wa waaxu ñëw fi moom on xoodata diw turandoom naa ki yëngal buntu bi moom kum war a doon la ko waxoon munaa maa sumnu jabal buntu bi maa ko fi yëngal tey kenn waru ko fee yëngal kudul maas moon yaman hun xoode wu bil ko mu wiy maas jooy fa aysatu jooy malaak yërmande ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa fa aysatu yaa umul masaakiini wa yaa umul mu aaminuuna yaa sangu bindee fi num defoon faadu rasuulullaahi man sama xarit ba fi newoon te gën ni te jinneeg nga wax ma num defoon faadu rasuulullaahi man sama xarit ba fi newoon te gën ni te jinneeg nga wax ma num defoon sara alayhi rabbuna sun buur bu mag ba yóbbu naa sangam sangam ya faddu naa julee ki war na won mu naaw maastaluma tey demal fa kër xaliyu kay waxtaan fa faatimatu cey kon mu solo la num defoon mu waaxu dem kër xaliyoo ba mu demee dafa nuyoo faatimataane kii nuyoo yónni jabeer ba fa newoon reeni goo di turam mu baaxu ñëw ba fi wetam naa ki yëngal bunt bi kum mu naa maas moon yaman rayaana too di aw turam ba fi wetam naa ki yëngal bunt bi kum mu naa maas moon yaman rayaanu bil ko mu wéy maas jooy fa faatimatu jooy maraaki yërmande ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko faatimatu yow maa ngi lay giñal ci yàlla xëw solol ma faatoom nga te yow bu làkk fépp fu doxoon mu naa maas foo fekke woon keroog molom ya mu meloon àdduna soof laak sa bakkan dootu la faale bi la dun metti yu suur ko ba mu gel delloo ti suur ko ba mu gal niw dalde xoog ni la mel nii mi de tiis fa yemam ku doon saaba ñëw fi moom mu seet ci ci ñoom mu naa maas fu mu dem baluum ñu naa ko maasa nga yaman mu naa nuyu leen ma maas te ngeen santal ma it maas te ngeen waxal ma ne maas doxali naa ko yaman metti na bambankab loxoom dellooti tàllalub loxoom ndiraw mettit wu nekk ci moom àdduna soofoon na fi man walaay maas mu jabal keroog yónneen ba nelawul Madina kenn ki nelawul te booba yow yaa nga yaman boo fekke woon bésub keroog àdduna soof la yow keroog dootu la faale moos keroog képp ku faale bi la kenn nelawul sax ba bilaal noddu di woo xayru rasool waxtu yi ñëw na yaa rasool salaatu xayru la waxoon keroog la yónneen ba ne Ababacar jiite leen dellu ko baamu yaari yoon mbay jiite leen yaa fa yaman keroog la yónnem ba na leen Ababacar na jiite leen dellu ko baamu yaari yoon mbay jiite leen yaa fa yaman Ababacar moo jóg taxaw ronga yeyul mu naa ko yow xubuy taxaw fa nga taxaw farxaa ci fa yaman saaba ya baxaa cufar seen mboole ser ngi raw naqar yonne na haayi sa far moo yooyu xaacu moo di lan mu naa ko saaba yaa di jooy lan fa newul moo tax ñu jooy fag ndaa taxaw ku teew fa jooy jàmbaar yi rët nañ la waxoon mu naa ko saaba yaa di jooy lan fa newul moo tax ñu jooy fag ndaa taxaw ku teew fa jooy jàmbaar ya rek nañ la waxoon yónneen na rabbi xawi nii xataa usallihim inni rajawtu an yaafi nii haasi salaatu yaa muyin bur yàlla fiixal ko mu asaamatam nu sayyidaat fallum naa baasa ñëwaat xali ñi ñoo ko daroon ba mu ñëwee ñu bokk buur ko sigar ñii di luur yónne na Baabakar li wóor jiital bindee fi yaafatin yónneen ba jekki fa kanam Ababakar bañ baat bëlëm sappa ya dar bii xolam génne ni waa jafa yaman bañ salmalee yónneen na leen lan saari ak muhaajiriin tey maay nëeg yéen di leen sant kañaa nan gudd fan ngiraan na nan ci ay naqar ñu bés ma yéen ngeen doon ma jar ban bokk dencaay naqar na yàlla dolli siini fan badar ña yéen la àndaloon unay ni yéen laa fa gisoon te boog waxaa ndax yéen a uut yéen fa gën yéen a fa Xaybar te yéen man waadil xuraa keroog la yéefarus mare na yàlla lootal siini fan yéen a fa Xaybar te yéen man waadil xuraa keroog la yéefarus ma reet na yàlla lootal seeni fan jamaakum nasarakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islaamakum allahu rabbi ya amiin jamaakum nasarakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islaamakum allahu rabbi ya amiin gaa nuy leen ma maas te ngeen santal ma it maas te ngeen waxal ma maas doxali naa ko yaman na yàlla def ci yéen watal te dolli muñ ci seeni xol di leen jubal te yéwénal seen mbir yàgg maas fa yaman Mahmoudou Sow yow taxawal waxtaani fees na ci sa xol yal na nu maas ibnu jabal sedd ci cër ba mu amoon xarit ba yal na sun xarit xolam ba yàlla nañu ca seet mbootoo ma yàlla nañu ca boot na mbootoon maa sooya man xarit ba yàlla yi sun xarit xolam ba yàlla nañu ca seet mbootoo ma yàlla nañu boot na mbootoon maa sooya man te bam lu tabeel yooye gaay te làq seen pastif ya waay te ful nu jox nu bóot ya waay ak booti daam mii fi nan nun ñii déggoo Ahmadu daam delluy siyaare ji ba saam am nan lu raw xel raw kalaam raw bind nun daal seddu nan nun ñii déggoo Ahmadu daam delluy siyaare ji ba saam am nan lu raw xel raw kalaam raw bind nun daal seddu nan ñaan nan ci barke turu daam ak soxna saak askanu maam balla nu jóor koy hadiyaam réew yëpp naat biyaaru fi kun ngeneel ya dénkaane la boo njariñ yaraw xiyaas yàlla na may nu xaas ban ca waawa sol mi nan mi wa salaam ala nabi xayri anaam waalihi zawi kiraam wa wa man amin min a wa salaam ala nabi xayri anaam wa ali shawi kiram wa sabi wa man amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin bul